xoolal ma Macky Sall kii doy na président. mbokki Karang damay tàmbalee di nuyu ñi nga xamante ne ñooy suñu kilifa. yu màgg a màgg yi nga xamante ne teew nañ ci bés bi gannaaw loolu may nuyu ki nga xamante ne mooy président conseil départemental ànd ak délégation bu am maanaa bu am njëriñ bu mën a wax lu am njëriñ ci délégation bi nag ràññe nañ ci ay kàngam moom président conseil départemental ci boppam bu leen ko gis mu taxaw ni woyofal boppam am na lu ko yàlla dënk am na lu yàlla def ci moom waaye doxewu ko waxewu ko parce que nag dalal na ma waxtaan na moom bi ñu waxtaanee am na li ma ko wax sama kilifa la avant politique di ñu boole bi ma dalalee mu nekk nit ki ma doy ginnaaw moom aussi am na ñu nekk ci délégation ku mel ni maire Djilor kooku muy monsieur Lassana Sano ñu ngi xamante Facebook comme ni mu ko waxee. si ay publication yi ma doon def contre pouvoir bi nga xamante ne moo fi nekk ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la suñu département di dund moom la Kaarang di dund si lañ jaar xamante di waxtaan di naxante ba tey yàlla def li muy def nii maa ngi ko naan yi passé xam naa leen xam ngeen ma même bu fekkente ne da ngeen di bañ parce que département bu Foundiougne waxuma leen Kaarang suñu coalition moo jël deuxième Macky Sall dong moo ñu jiite te ñoom xam nañ li tax ñu jiitu ñu Macky Sall la bu doon ñu nag ñoom kese la dina doon demee neneen ñun ñoo nekk première génération bi ubbi seem tubaakuta mu nekk CEM bu njëkk ci ñoom mbaatu kon ku génnee ci CEM boobu noonu war nga fexe nga doon référence pour ndaw yi nga xamante ne ni ñooy màggee ñoom mbaatu parce que CEM boobu nag amul CEM bu ko fi mag ñu jóge CEM bu Toubacouta yàlla yóbbu ma CEM bu Sokone ma def fa trois ans fa amee sama BFEM dem lycée Malick bu Thiès dem fa trois ans am sama bac dem université Cheikh Anta Diop bu Dakar def fa 4 ans am sama maîtrise yàlla mi dara tëwul bi ma amee sama maîtrise mu may ma bourse étrangère ma dem Russie def fa 6 ans am sama master 1 sama master 2 ak sama doctorat ma ñib si ma ñib si avant may ñëw ñu lancé mouvement Benno Defar Kaaràn waaye nag ba may nekk Russie yàlla def na président de la république bi ñu ko daxee assemblée nationale 2008 si laa ko topp di ko jàppale boobu yaakaaruloon ne dina falu ñu koy xeexal boobu ñu ngi àll yàlla def ma ñib si fi fekk fi maire bi comme ni mu ko seedee muy monsieur Diogine Gomis jamono boobu da doon wut may wut ñu xaritoo muy ñëw sama kër may dem këram ñuy waxtaan comme ay mag ak rak ñu dem ba un certain moment bu waxee lépp li tax maag moom mujj ñoo ànd problème de liste la ba pare tegaloon naa ko ci ne am na loo xamante ne nanguwuma ko ci list bi bu fekkente ne loolu mën nga maa jëggal si la ma ne mën naa laa jëggal mu dem ma dem biñ demee ma am trois conseil Cheikh Tidiane gaajo mi ma nekkaloon juróom-ñeent carte la fi amoon bi ma ñëwee doonoon xale bu ndaw mosuma def politique engagé wu ak ña ko gëm ñu am deux cent cinquante neuf voix te Cheikh Tidiane gaajo ku ci nekk xam na ne nekkoon na fi ministre bu ñëwee fii tële fi benn résultat bi c'est parce que waa Kaarang ñoo ngi doon xaar ki nga xamante ne moom lañ njaboote muy man mii ak ña nga xamante ne ñoo ma doon jàppale doon yeewoo Kaarang ñu jox ma li nga xamante ne mooy sama cër. ma am trois trois conseils municipaux ñu jóge ci loolu parce que suñu combat duñ ko nëbb ay opposants la ñu woon dañoo assumer suñu position jóge fa dem référendum yàlla def non bi kaaran fii encore ci région bu Fatick la ëppoon doole ñu jóge ci loolu dem élection législative Moustapha Guèye muy Petit Guèye bu sookoon bu ma ko bàyyiwutoon mu doon candidat ci département bu Foundiougne du doon candidat ci département bi ci liste nationale la doon dem dañ ma ne woon ma tànn maak moom kenn dem liste kii nationale kenn dem liste départementale Bigué Ba maag moom ñoo nekkoon département russe ma proposé Bigué ne leen nañ bàyyi Petit Gueye mu dem ñu jàppale ko mu nekk candidat ñu nekkoon di liggéey ak moom def na choix fan yi ànduma ci nanguwuma ko waaye comprendre naa ko ba muy teel parce que jabaram bi muy nekk député assemblée nationale ki nga xamante ne nii mooy Idrissa Seck ci listam la jàllee kon nag bu ñu toogee tey lam ñu doon nëbb jamono di dox jamono di dox ba jabaram nekkatul député mu wëlbateeku dellu foofu noonu lépp feeñ na may attirer attention population bu ñombaato di attirer attention population bu Karang maire boo ko bëggee doon da nga war a doon responsable un responsable politique boo ko bëggee doon la nga gëm dee ko wax mais li askan bi gëm aussi dee ko wax mais dëkk ci la nga xamante ne moom nga gëm rek di fàttali askan bi gëm bokkuma ci leader politique yooyu noonu may sa maye koor nag amuñu fayam parce que man na ma ko waxee woon laa koy waxaat première dame pepp ceeb moo gën a tuuti ñaanuma ko ko dañoo toog génn may sa mayekoor woo ma mu ne ma ñu ngi lay envoyé appui si la ñu envoyé cinq tonnes ceeb muy cent saako ceeb ñu jël ko tasaare ko ci dëkk bi bu ñu neexoon def ni ñenn ñi yemale ko Dakar mbala Kaolack borom camion bi la ñuy waxal kenn du ko xam xaalis bi ñu jël ko damm suñu poos parce que weer bu nekk dañu jënd ceeb noon na am fu ñu féete waaye comme que askan bi lañ fi nekkal te fii am na loo xam ne boo koy def day yàgg rek mais tôt ou tard dina feeñ. donc président de la république bi mu jógee ci loolu kii nga xamante ne mooy premier ministre semaine bi passé la ma recevoir DG Birame fay kii moom moo yombal sama jokkoo ak président de la république ak première dame DG Birame fay moo yombal dalal bi ma premier ministre dalal bi ma waxtaanee ak premier ministre am na lu ma gëmloo. mais nag am na loo xam ne mën nga ko wax ci biti am na loo xam ne mënoo ko wax ci biti li wóor ba leer mooy président de la république ràññee na mouvement bennoo Defar Kaarang parce que moo ko waxal boppam ci téere bi mu bind le Sénégal au cœur kon Kaarang est au cœur la coalition Benno Bokk Yaakaar est au cœur de la politique bi nga xamante ne moom la chef de l'État di mener au niveau du Sénégal et particulièrement dans notre département kon kooku bu ma woowee tey ci bu ñuy wax ci wàllu politique kan moo ko gën a kawee kenn jabaram woo ma premier ministre dalal ma ma wëlbateku daje ki nga xamante ne tey moo yëlif suñu département muy président conseil départemental muy Moustapha Mbaye wëlbateku ci eh, Pape Seydou Dianko honorable député dalal ma kii nga xam ne mooy suñu maire guddi ak bëccëg ak ancien maire dañ ma topp docteur fii mooy sa place ñëpp sil samay kilifa yu bëri yu nekk ci dëkk bi ñëpp sil ma ne leen dinaa ñëpp si waaye li tax may dem xam ngeen ko parce que président mu faloo yàlla rek moo tax may wax 2018 bii bi muy waaja jeex si lañ door a gis forage 2018 bii bi muy waaj a jeex si lañ door a gis courant may ñaan nag mu continuer te liy ñëwaat mu bañ a yéex mu bañ a yéex laa wax président de la république nag bañul kaaraan loolu moo tax boo leen gisee opposition am jëmm kaaraan fii Ibrahima Sané la ak abdu Diallo 59 pour cent électorat bi ci ay chiffres lay wax élection yi passé ñun ñoo ko contrôlé yàlla def na ñun mouvement dong lañ ànduñu woon ak kenn. tey loolu ñu am dañ koo jël delloo ko président la république parce que moom lañ gëmoon moom lañ doon àndal ñàkkoon a ànd ak moom ci fàtte bi ñu fàtte suñu gox loolu moo tax waaye ginnaaw Kaarang diggante Toubacouta Missira ginnaaw bi ñuy bàkku ba pare depuis indépendance ba léegi waa Missira ñu ngi jooy tali anamu ah suñu département dafa am ay jafe-jafe il faut ñu nangu ñu wax ko parce que tey bu ñu ne maire population bee ko tax a falu li tax population bi fal ko jafe-jafeem bu ñu ne président conseil départemental population département moo tax mu falu kon ci gàttal li ñu war a mën a wax yëpp bëri na mais ma yëgal population bu Kaarang monsieur le maire may sa maye cor Diouf tey bu ma ñëwee biir APR dëgg la am na looñ ci waxtaan lu bëri am na loo leen ci def lu bëri mais may sa maye koor Diouf mii ak DG Biram Fay ñoom dañ ci nekk ñoo xamante ne dañ ci tuutiwul président conseil départemental kii di Lassana Sano maire bu Djilor Amadou Debe invité na ma fii final bu ñu ko tuddee woon vraiment ñi aussi jàpp nañ ci ni ñu mënee ci wax def nañ le tout pour ma delsi kon nag bu ma delsee tey ginnaaw bi ma santee yàlla ba noppi yéen ñëpp dama leen di sant gërëb leen di leen ne fekk si naa leen ci li ngeen moo woo ma leen di ñaan bés bu ma soxlaa la ma leen di woo ngeen fekk si ma si wax ji loolu la tey yéen a woote ñëw naa bu subaa bu subaa ñun ñooy woote may leeral nag am na ku ko fi wax le mot a été lâché le temps est fort et très crucial c'est le moment de l'unité ici et maintenant ku ci gëmul loolu yaa ngi tardel sa bopp di tardel coalition Benno Bokk Yaakaar donc coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci département bi Foundiougne yaakaar naa ne suñu stratégie lenn la kaarañ fii nañu bàyyi monsieur le maire ma wax ko ci kanamu président conseil départemental ña nga xam ne ñu ngi APR ba pare ñu leen di seeti ji ku seeti ji militant APR actuellement liggéeyaloo président de la république la ngay def sa bopp ngay liggéeyal nañ ko arrêté opposition bi la ñuy seeti ña nekk ci opposition bi ñu jël leen ñu indi leen mais munuma gëm man docteur ma ñëw di seeti nitu Gomis ne ko kaay ànd ak man ñu jàppale président alors que moom mu ngi jàppale président façon politique boobu dafa war a dàkk bu fekkente ne bëgguñ nax président de la république ñëw naa dama bëgg ñu dox ci loolu nañu dem ci opposition bi pare naa guddi ak bëccëg ànd ak yéen ci opposant yi dem ci opposant yi décrocher seen militant yi ñëw renforcer président de la république fii ci Kaarang fii ci département bi ngir taxawaay ak jëmmal bi nga xamante ne nii président conseil départemental ak délégation def nañ ko si suñu bésu tey bii ginnaaw loolu noonu nag ndé ay kàddu ndénkaane la ak yóbbante kaarang dëgg la président de la république am na lu mu fi dafagum tàmbali nañ am forage tàmbali nañ am courant mais loolu moo tax ma del si loolu laa doon xeex su tàmbalee ñëw ma taxawaat ci mbedd mi di xeex la may wax ña ma gëmoon te loolu taxoon ñu gëm ma dootuñ ma gëm dootuñ ma topp ñëpp si naa parce que kaarang commencé na am deuxième forage ñëpp si naa parce que kaarang tàmbali na am courant waaye nag yóbbante bi mooy li fi nekk doyul. courant bi monsieur le maire wax na ko dina ñëw mais dañu bëgg ngeen mettre la pression courant bi teel a ñëw parce que nag wax dëgg neex yàlla suñu jiitu lépp yaakaar moom moo ñu fi bàyyi nit yi bu ñu yaakaarutoon duñ topp suñ ginnaaw kon la nga xamante ne mooy seen i mbëbët nañu jéem a taxaw ñu dox si. enfin enfin je voudrais véritablement terminer mon allocution d'aujourd'hui pour dire officiellement à qui veut l'entendre que dorénavant. docteur Abdrahman Diallo, au nom du mouvement Bernard Defar Karan, a décidé, suivant une décision du bureau politique, de le candidat M. Macky pour contribuer à sa réélection dès le premier tour, le 24 février 2019. mouvement Bernard Defar Karan, ensemble avec la coalition Benno Bokoyakar de Karan, s'engage à apporter toute sa contribution pour faire de Karan l'une des premières communes au sortir des résultats à la soirée du 24 février 2019. Donc, l'objectif, l'objectif, je dis bien, l'objectif, c'est d'atteindre un taux maximal de 90%. À défaut, à défaut, c'est de donner 65%, comme le président de la République l'avait été, euh, avait été élu en 2012. Donc on s'engage ici au nom du mouvement Benno Defar Karan et en relation avec le maire de Karan à contribuer à cette réélection avec l'appui, le soutien et l'accompagnement du président du conseil départemental et de l'ensemble de sa délégation. Le responsable du RP, monsieur Issaba, une sommité également dans le département. Comment parler et ne pas citer monsieur Issaba? C'est quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de choses. Quelqu'un qui a également su me des conseils. au moment du choix. Le choix n'a pas été facile. L'opposition me demandait de rester, mais la mouvance mu tendait également la main. Il fallait décider ici et maintenant. Merci beaucoup. Université Cheikh Anta Diop ñun dañ fa dugg rek Macky Sall yokku salaire yóbbu ko deux cent yokku ci deux cent cinquante mille duma leen ko nëbb université tey boo leen fa demee étudiant bu doon jëndee ticket añ fanweer ñaar fukk nga koy jëndee université étudiant bu doon jëndee ticket ndekki fukk ak juróom tey fukki dërëm nga koy jëndee université ku fa dem tey amoo woon tëruwaay président de la république yokk na fa lu mot 4000 lits université boo fa demee tey président de la république boo nekkee enseignant ba nga dem retraite sa weer bu mujj la nga fay ko 85 pour cent moom lañ lay fay président de la république loolu la def fee nga xamante ne mooy ci université yu Sénégal yi donc su ma sukkandekoo ci loolu am naa ay raison fekki ko jàppale ko te gëm naa ne li ñu naan PSE le plan Sénégal émergent c'est une vision Le président de la République, ce qu'il dit à travers le plan Sénégal émergent, c'est qu'à l'issue de 2035, que le Sénégal puisse être un pays émergent avec un état de droit, mais aussi avec la solidarité. ci biir plan Sénégal émergent mu am nag lu ñuy tuddee ay programme lu mel ni PUDC lu mel ni PUMA lu mel ni programme Promoville waaye nag monsieur le maire ak président conseil départemental PUDC wëyi neex nañu lool waaye réalisation yi ñu ngi koy xaar kon ci gàttal encore une fois maa ngi leen di sant di leen gërëm président conseil départemental monsieur le maire bëgg nañ salle de conférence bëgg nañ esplanade pour artistes yi nañu engagé wu bu président amee deuxième mandat ñu jéem a xool naka la ñu koy indee donc tey ñu ngi engagé wu fii maa ko wax man ak maire ak président conseil départemental ak suñu frère suñu collaborateur suñu xarit Maysa sama Koor Diouf ak délégation bu président de la république amee deuxième mandat Kaarang bokk ci ville yi nga xamante ne comme nu ko sama collègue boobu noonu Amadou Debe waxee Kaarang c'est une ville frontalière on doit faire de Kaarang tout ce qu'on aurait pu faire pour une grande ville une ville émergente une ville respectée donc population bu Kaarang encore une fois jërë ngeen jëf ca kaw ca kanam avec la coalition Benno Bokk Yaakaar merci.